Je m'appelle Jean-François Fay. Je suis le président du comité d'initiative qui a organisé cet événement. li waral euh, ndaje bi tey mooy euh, taxawal euh, kuréel bu ñuy wax mbootaayu ñepp ñi yëngu ci mbam. donc moy assemblée générale après war nañu taxawal ay kurel, kurel yi di conseil d'administration bi ak le bureau exécutif manam bureau bo xam ne wara jël programme bi yëpp liggéey bi diko doxal. donc li tax ñu bëgg a boole ñooñu ñëpp mooy dañu seetlu woon ci wàllu élevage yarum mbaam dañ ko beroon kenn daaw ko toppatoo ak yu mel noonu waaye li waral loolu itam mooy ñi doon yëngu ci mbaam dañu organiser wul woon loolu moo tax ñu def suñu kéemtalaay kantam def dem ci gox yu bëri yee leen ci euh, nécessité wu ñu boolo suñu doole mbooloo mooy doole loolu nag lu bëri mën nañ ko am ci mbooloo bu ñu boolee suñu doole nguur gi dinañu mën a déglu nguur gi dinañu mën a jàppale itam ak yeneen partenaires yi nga xam ne ñooy ndimbali lépp ci wàllu élevage muy Euh, bu ñu jëlee par exemple wàllu suuf si aussi mbooloo mooy tax ñu mën a mën a waxtaan ak collectivité locale yi pour ñu mën ñu jàppale ñu mën a am bërëb yoo xam ne mën nañ fa def euh, yaru mbaam ci anam yi nga xam ne moo gën parce que gis nañ ne ñu bëri dañuy yar seen mbaam ci biir kër yi mais bool boo koy def itam ak xet bi ak yooyu yëpp dinga tooñ sa morom te loolu itam du li gën moo tax ñu bëgg vraiment ci wàllu mbootaay bi fexe ba mën a am jumtukaay yëpp li nga xam ne moom mooy tax ñu mun a def yarum mbaam ci anam yi mucc ayib daal. wàllu wérgu yaram bi. wàllu wërgum yaramu mbaam yi itam euh, mbooloo mooy tax itam service de l'élevage mun a def vaccination de masse bu ñu amee organisation bu taxaw comme niñ ko taxawalee nii mën nañu. Euh, am ay vaccin vaccin yoo xam ne bu ñu pour defee programme plan d'action dinañu mën a dem goxoo gox ñu ne bërëb sàngam bés sàngam lañ fay dem jàpp leen seen mbaam yi comme ça ñu mën leen vacciner ci jàngoro yi nga xam ne moom mooy gàllankoor mbaam mais gis nañ ne euh, vaccin bi ñuy wax euh, pest porcine la peste feebar bi nga xam ne mooy pest porcine amagul vaccin mais ñu ngi ñu ngi waxtaan itam ak nguur gi pour ñu jàppale waa ISRA ñi nga xam ne ñoom ñooy gëstu ci wàllu vaccin yi pour ñu mën a génnee vaccin boobu waaye wax dëggam yàlla alal la laaj am alal bu bëri la laaj pour ñoom ñi nga xam ne ñooy gëstu kat yi ñu mën a gëstu ba trouver ñu vaccin boobu nga xam ne pour xeex pest bi mais peste bi nag euh, service de l'élevage xelal nañu mën nañ ko euh, gàttandu ci anam yu bëri ci maanaam ni ñuy dundalee mbaam bi mbaam bi au lieu ñu koy jox ay ñam yu yu yu comme ñamu mbaam ni ñu koy waxee ci ñamu mbaam mën nañu balaa ñu koy jox loolu itam ñu baxal ko buñ ko baxalee dina rey microbe yi ci nekk yëpp ba nga xam ne bu ko lekkee du ko def dara te itam beneen xeex bi mooy fexe ba xeex euh, divagation nuñ koy waxee ci waa taxawaalu mbaam yi ci ci mbedd yi parce que mbaam lu nekk lay lekk mais bu dee par exemple période peste am na fu mu dem lekk dara buy delluwaat ci sa euh, dëkkuwaay bu boobaa day indiwaale jàngoro boobu bu ko defee nag jàngoro boobu bu duggee ci sa ci sa gétt lépp lay faagagal donc euh, vraiment. aliment de bétail bi tam am ngeen ci jafe waaw aliment bétail bi loolu itam mbootaay bi loolu moo ko tax a jóg ñu fexe ba buñ ci bu ñu bokkee ci kuréel. dinañu mën a am li ñuy wax opération sauvegarde du bétail ci biir euh, élevage am nañu benn euh, bànqaas boo xam ne euh, nguur gi daf ko jagleel képp kuy sàmm képp kuy sàmm am na xeetu aliment boo xam ne NMA mu ngi koy defar jagleel ko mbaam yi léegi loolu bu ñu bokkee ci mbootaay yi dinañu mën a am saaku bi à 5000 francs à l'usine saaku 40 kilos loolu vraiment lu baax la te day dimbali yarkat yi yarkatu mbaam yi loolu vraiment ñu ngi ci xeex te ci def ay démarches temps yële passé demoon nañu gis waa NMA pour ñu set nu ñuy defee benn partenariat pour liggéey ak ñoom da nga xam ne ci kanam dina ñu mën a wàññil njëg loolu itam euh, loolu mbooloo rek moo la ko mun a may moo tax may ñaax vraiment ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci yarum mbaam bi ñu bokk ci association bi daal. fi mu toll nii daanaka ñi nga xam ne bindu nañu am na ñu bëri ñoo xam ne bindu nañu mais xëj na mëtaliguñu seen cotisation mais weesu nañu mille mille adhérents weesu nañu mille adhérents fi mu toll nii ci. Euh, waa Thiès ak euh, xeet yi xeet yi nga xam ne am nañu ay variété yu bëri ah tet yi tet yi daanaka bi ñu calculer eggoon nañu presque ay trois mille quatre mille euh, sujets yoo xam ne ñu ngi ci ci ci région bi voilà mu xës ndax maa ngi doon wax ak sama AVP que ñu xool ay séance formation yoo xam ne dañ nga xool éleveurs yi

Dans chaque département, dans chaque commune, il y a des gens vétérinaires des tournent autour. léegi nag il faut pas avoir peur dem leen gis vétér agent vétérinaire bu nekk foofu seen côté bu deful liggéeyam ngeen wax ko départemental wax ko ko ñu sanctionné ko ci saa si ndax liggéeyam mooy saytu jangoro bu nek ci gox amul mbaam amul xat amul fas amul dara kep ko jot jangoro bu feebaree dañ ko wara xol xool ko adiko am na ay vétérinaire privé yoo xam ne dañu nekk ci sa localité nga yóbbu ko fa ñu xool ko ndax am na feebar yoo xam ne dañ koo war a jël comme ki ma wax ni moom maamam la mais bu ñu ko xamoon dinañ mën a dem def jël ay analyse dem yóbbu ko labo ñu xoolal ñu ban feebar la am lu tax mbaam yi dee ak yooyu ñu xam ko ba éviter ko prochainement mooy am euh, yeneen faute maladie mais loolu nag waxtaan ak moom bu agent bi réagir bu dem wax ko départemental bi ah lépp wax ko président mu président bu ma ko waxee man damay agir directement ci agent bi ndax liggéeyam moo loolu. ñaari collège yooyu mooy lan mooy. le collège des producteurs ak le collège des transformateurs parce que tomate bi tomate industrielle la su ma nee tomate tomate industrielle laay wax ndax di doo xam dafa sës ci benn gox nekk benn koy def mooy sur la vallée du fleuve Sénégal usine yi ñoo fa nekk. donc da ngay béy jox usine bi mu transport bi loo moo tax ñoom ñu yem uniquement ci ci ñaari ñaari collèges yooyu bu ñu jëlee dans votre secteur ma jël exemple comme filière lait ñoom seen néeg yi dañ ko defal ay ruq ay ay couches par exemple dañu def ay section lañu ñu def après ñu ñëw ci néeg bi après ñu soog a nar a ñëw ci interprofession bi filière mbaam ñu ngi nekk di tabax pareeguñu état bi dinañ ko dinañ leen ko won léegi mais xam nañu déjà tendance yi gën na mais comme que ñoom comité d'initiative comme ni ma la ko ci état bi ñoo ko nar a décider bi yenn acteurs yaa leen ko nar a décider bopp am na ay xalaat en tout cas am na ñetti pour le moment ñetti piste xam lu ma ne gën na mais mënuñu wax ni lii la lii fii ak fii exemple bi ak exemple bi ngeen yi jël parce que yéen ñu moom mbiri décider gu leen parce que ñun dañuy ne toujours acteurs yi ñooy décider ñoom ñooy xam fi ñun duñu leen ñun dañ leen di woon yoon bi rek eh, yéen ngeen xool lu gën a baax parce que xam nga noo leen tëddee ngeen joxe loolu mais si les en tout cas les étapes yu ñu defagum ñoom ñu ngi respecté pour le moment sur les dix étapes lu ñu wax am ñu étape yu ñu ñu nekk di respecté gum la première étape bu ñu waxoon mooy ñoom dañoo toog ba mu yàgg ñi ah ñun de xam nañu tey pour nga dem il faut que nga kuréelu mais comme ko xam ne nu ñuy kuréelu te xam nañu am na ñoo xam ne ñii lii mooy seen liggéey ñu dem seeti leen ci la ñu jógee ñoom quelques acteurs ñu ñëw seet effet ndax ñu doon tenir un benn séance de travail ñu jox leen yoon bi mais bu leen wanee yoon bi ci saa si la ñu ne ah kon nag ñun duñu xaar ba suba di décidé waat ci saa si ñu ne kon nag nañu def fii balaa ñuy jóg ci réunion benn comité d' initiative. donc da leen waxtaanee non on applique le théorème dit ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ci saa si lañu ne benn comité d'initiative où ils ont fukki nit mu représenté la ñoom ñoo nar a nànk processus bi. bu ñu bu defee comité d'initiative ñu foog ne la ñuy yem ne non non non ci saa si nañu dañuy defar suñu feuille comme que nii ngeen ñuy wax gis nañu les grandes étapes ñoon ñun lii ak lii ak lii pare nañu lii la ñu a def ci saa si si la ñu def loolu. bu ñu si paree ñu ne ah ñun fukk la mais dañu nar a liggéey daanaka Sénégal yépp fukk pour Sénégal yépp dañuy bis ñu li étape bi ñom ñoko duggal c'est c' est une spécificité de la filière porcine pour un peu vous montrer que engagement bu ñi ñuy am mais comme que ñun fukk la ñu te mbir yi ñu ñu gis nii diis na comme que ñu on a choisi une entrée diocésaine comme que dañu organiser autour des diocèses donc ñun foofu moy suñu buntu ñun tamit déjà gis ngeen ni ñom dana teg ma doon wax ci kaw ñoom ñu ngi koy indi fii par rapport à l' de la filière possible ñoom tamit indi nañ si beneen spécificité génnee beneen yoon bu gën a gaaw bu nekk comme que def suñu entrée diocésaine kon ñun tamit dañuy créer ay comités d' au niveau des diocèses des diocèses au moins pour avoir des comités d' initiative diocésaines loolu moo nekkoon la <coughs> troisième étape boo xam ne ñu ngi koy def mais comme que amoon na étape de pré-identification des acteurs ils ont délégué ñu ne jël une comité d'initiative jël si leen léegi commencé nañ identifier seen i acteurs ci processus boobu la ñu nekk. Hmm. prochain processus mooy ils vont aller vers l' atelier de validation de la pré-identification mais aussi ñu choisir ñoom léegi comme ni ñu ko woonoon ci kaw naka la ñuy wu xam nga ci kat dañu ne néeg bi plan néeg bi naka lañ koy tëddalee l' atelier qui va moom mooy moom mooy doon loolu. mais au lieu que ñu bàyyi ñu ñu dem directement non non non ñu dem directement lu ñu gënal mais à chaque fois bu ñuy dem ñu avons ak ay propositions si nous ñu on la demandé au FNDAF ñu organiser séance de travail non seulement pour préparer exploiter données yu ñu amagum mais l'art, qui ban un ban plan nous ñuy pour pour défendre filière fossile Donc, moo tax la en tout cas am na en tout cas plan tey vous êtes représenté par 4 membres sur les 10. Donc cela veut dire que c'est assez important. Et parmi ces 4 membres, vous avez 3 membres très très très actifs qui ont ne du ñu raté sax benn réunion yombul tamit jógee La deuxième chose bi je bëgg c'est par rapport à tous ceux qui sont là pour ñu un partenaire partenaires euh, souvent suñu premier problème li ñuy doon xalaat ci biir euh, comité bi mooy xeex li ñuy naan divagation parce que en général feebar bi gën a metti ci ñun bi ñuy am ci affaire u mbaam mi c'est la PPA mooy euh, peste porcine africaine te li koy gën a indi avant tout divagation bi la sa mbaam day dugg ci benn pàcc boo xam ne am na ko mu dem jëli ko foofu yóbbu ko feneen Deuxième chose, c'est l'alimentation. Mais nous avons fait une partie. C'est l'hygiène. Je ne sais pas si vous avez dit que Je ne dit pas vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que vous parce que l'image que nous avons au départ, c'est que nous avons fait un peu de Nous avons fait un peu de Nous avons fait un peu de temps. Donc, nous avons jël ma ñi fi nekk ñëpp tey dañ fi ñëw parce que dañu bëgg a ànd ak ñun c'est pas suñuy noon mais suñu collaborateur et bés bu interprofession am na ñaar wax ñuy feeñ chaque fois la chaîne de valeur ak interprofession il faut que ñu dem ak yéen ba expliquer leen lan mooy interprofession bu loolu bu demee ba taxaw dañuy xam kan mooy def lan ak kan mu mën a def lan ça fait soxla bi bu taxawee ñu xam fan lañ mën a dem jëli li ñu soxla te li ñu soxla ci ñun rekk la du ñu dem jëli feneen kon je pense que euh, nañ xeex bu am li ñu bëgg. coût de production mbaam mooy maanaam ku yor mbaam ku boo boo jëndee mbaam bi côté bi. ana lan ñaata ngay investir ñaata nga ciy def ci alal. ci alal même ci ñàkk bi sax waxtu yi ngay liggéey sax fi compté nañ ko ba nangami weer ba nga mën koo jaay ci ñun calculé nañu neuf mois def ay neuf mois lañ jëloon ana lan ngay investir foofu ak neuf mois ñaata lay toll ak boo ko jaayee ñaata nga ci mën a am euh, néew na waaw néew na euh, néew na moo tax legi ñu eh, ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaax ñu ngi xol ñu ngi gëssu ci aliment bi eh, lan lañu mëna nan lañu mëna alimenter bi ba nga xam euh eh, kiko yar mëna am am euh bénéfice mais tamit ci ci ab ban lim ngay tambalé am bénéfice parce que boo yaree benn mënoo yar bénéfice mëno yar mëno am bénéfice bu bari bo yaré ñaar mëno am bénéfice mom ak ak ak comparaison pour, bon, n'est pas raison, mais vous avez, par exemple, euh, même Genaro Kerini, à partir de 50, euh, 50 sujets. Mais mon âme, il 15 000 francs, moins de 20 000 francs, il y a un petit bénéfice. Bon, ce qui est c'est un tu as un bénéfice. Il y a un minimum de bénéfice. Donc, euh, je crois que c'est autour de. Il faut, il faut dépasser 5. Il faut dépasser 5 pour que tu aies un Parce que dans les dorment,

ana entreprise mbaam boo naree def entreprise mbaam ne moom lay liggéey di ci di ci ci war a am par par di ci war a fayeeku loo xam ne mën na maa fay weer ci at bi fan laa war a lan laa ci wala laa war a tàmbale nan laa ko war a yore lan laa war a teg ci eh, ci investissement ci loolu donc loolu eh, am na ay gëstu yu ci am te mën nañ ci séddee li nga xam ne ñu ngi ciy jàngat te moo tax ci Kolda bi nag la ñuy def appliquer loolu lu lu am solo am na minimum boo xam ne ci la ñuy jox bu ñu joxee ñaari mbaam euh, comme à Fandel ou à ou à Tuc non am na je crois plus de 5 j'ai oublié le nom mais en tout cas minimum boobu entreprise boobu la ñuy def pour tester euh, entrepreneuriat élevage mbaam euh, ci wàllu aliment bi ngay wax tamit ma daaneel foofu euh, gis naa ci présentation schéma bi sànq kër yooyu nga monsieur Doucouré doon présenté mu rafet les comment on appelle ça encore les les les voilà collèges collège ma ah ci eh, bon ci gis mais je pense Les ngi Les Les Les très claire les sous-produits par exemple ni les producteurs de riz est-ce que producteur de riz yi nekk fallait valider bi ak euh, inter interprofession bi la lëkkaloo à partir euh, déjà ak ak wa wa comment il s'appelle encore là euh, Sodefitex qui a le coton avec son Sonacos qui a les tourteaux mon acte déjà déjà des éléments de base à partir desquels mën de faire des des aliments bi nga xam ne dina prix pour encore une fois baisser le prix, de production et bien sûr être accessible à, plusieurs. plus. c'était une une question Il y a petit habitat De quoi quoi? porc donc Donc, Il box il faut des box Le format Ouais, box bi est-ce que tu tu il y a ñun ñii di ca mbooro ci kër la am naka la ñu mën a def ba ci kër gi ñu yàgg te duñu loru te duñu lor am na ñu fi wax ne terrain nañu fexe ba ñu dimbale leen ci terrain fu ñu war a mën a yàgg donc ñooñu ñu ngi xalaat naka la ñuy kër gi pour wuti terrain ci biti xalaat la donc ma tënk ci yooyu ci benn l'eau, aspect habitat Vous parce que dès que nous wax le port a besoin de beaucoup d'eau donc ndox disponibilité donc na inspection yaakaar madame côté Bobou même bu ci wax sous votre contrôle waaye day côté boobu waaye nga may ma ci rek ma am ci tuuti lu ma ci sànni donc ñaari aspect ci ñaari aspect wala ñett laa regroupé question yëpp bu ñu seetee habitat am na ko fi wax gros producteur petit producteur ci njëlbéenu suñu intervention yi dafa ne gros éleveur ak petit éleveur waaye gros éleveur yi bu ñu gàllankoor petit éleveur ci wàllu hygiène monsieur le président. Euh, ci biir kër kuy yar benn mbaam ñaari mbaam ñetti mbaam mën na génn ci biti comme mën na ko yor ci biir këram waaye am na ku ñu wax le sérieux tout le monde est mais est-ce que ñëpp farlu nañu ci sérieux donc ma ko bi sérieux boobu pour wax ne il faut que ñu ñeme investir

ba ba c'est génn ci enclos bi munoo kër gi amna parce que amul benn xet y'a aucun aucune odeur mu koy dundal avec le sérieux aménager la box avec du ciment un plancher lavabo avec une dénivellation pour écoulement eau usée amna gal

donc écoulement sang, De dafay sàng dafay sàng de sàng di raxas de sàng mbaam yi de tranché di qui ci